waaw asalaamaaleykum sëñ Xaadim Seck Sadaga euh, président association nationale pour développement agricole et rural ANDAR tey jii ñu dalal fi Serigne Khadim Seck ci suñu site internet baolmediasinfo.com Serigne Khadim Seck nag jiite association ANDAR moom nag la ñu dalal fii responsable politique APR euh, moom seriñ xaadim Seck ñuy commencé suñu waxtaan rek ci dialogue national Serigne Khadim dialogue national bi ñu door ko fii ci Sénégal yow lan nga ci jàngat en tant que homme politique. Serigne maa ngi lay siyaare di leen baalu ak tey baalu ak ñëpp di di siyaare waa Baolmedias ñëpp ak waa site bi ñëpp di rafetlu seen liggéey jamono ju teg leen loxo ci barke Seexul Xadim su suma yow yow ndaw nga loo xam ne yàlla na la yàlla jàppale ci barke Sëriñ Tuubaa jàmbaar ngeen trop waaw dialogue national bi ñi ngi si euh, ñi ngi ko doon suivre suivre nañ ko bu baax a baax mais nag man am naa si am naa si daal loo xam ne man euh, jaaxal na ma ndax li ma si jaaxal mooy man dama si déggu agriculture baykat yi wàllu baykat yi ci ñun bay lañ am ci euh, président damaa gis ni mu fonke bay ba pare gisuma ci boole wuñ si mbay mbay mi loolu daal loolu ci li ma si jaaxal lii si des nag rafetlu naa ko lool wax dëgg yàlla rafetlu naa lool Euh, liggéey bi ni mu demee waaye ñun mbay lañ am ci euh, baykat yi bu fekkee ne tey boole leen ci yu mel nii ëllëg li may wax jamono ji ne ëllëg lu am itam buñ leen bëggee boole ci leneen dañuy mën nañoo bañ comme niñ bañe woon ci jiw wi ci kii ci ci euh, njëndum gerte mi kon yu mel ni damaa yaakaar ne ñoom lañ ci waroon njëkk a boole ci bu ñu leen si boole itam dañuy xool ñi nga xam ne ñoom ñoo jege baykat mais du duñ ñu xool doon ñu xool rek ñoo xam ne dañuy jékki-jékki ay yaama ay kële kële jege nangam lu mel ne borom mbaxane mu xong meeg yooyu ñu xam si ni ñoom seen bopp fu nekk seen bopp lañ fa nekkal ñun d'accord ci loolu ndax euh, li ñuy d'accord ñun mooy nañuy wàcc ci suuf li may wax jamono ju ne mbay mi ci suuf la euh, ñi bay ci àll bi lañ nekk kon nañuy wàcc ci àll bi di wax ak waa àll bi njëlag bii waroon nañoo xool ci àll bi ñoo xam ne ñuy jàppale baykat yi la ñu ñu ñu ñu ñu ñu boole leen si ndax fii ñu toll nii fii ñuy waxee yow xam nga euh, région euh, euh, kii Saalum moom gerte desutu fi baritu fi lu fi des ci baykat yi fi mu ne sonn nañ teel nañu dañuy teel a sonn kon nag waroon nañ leen boole ci dialogue bi ndax baykat yi sonn nañ sonn koo xam ne fi mu ne nii buñ leen boolewul ci dialogue bi itam ëllëg la ñuy def itam dab dabaatal doon lay doon si dab dabaatal day métti. mais est-ce que dialogue national bi nekkul ne loo xam ne dañuy ci waxtaan rek ngir. loo xam ne dina tax euh, jàmmu am ci euh, Sénégal mu nekk commencement bi euh, jàpp nañu ne yeneen dialogue national mën nañu leen cee boole li ñu jàpp daal mooy seen bés dafa ñëwagul mee bu ñëwee rek ngeen mën cee bokk wala non xam nga xam nga xam nga bu fekkee dañoo woo secteur yëpp ne boole leen ci benn benn kii affaire ne leen dañoo bëgg dialogue dialogue waxtaan politique ak lépp ci xam mbay mbay ni mu mel ci Sénégal ah kon dañ leen see war a boole fi mu a boole lu ñu leen defuñu lu leen war man xaw ma loolu man daal loolu moo ma jaaxal ci loolu maa ngi ci maa ngi koy fàttali président ndax jàppale na ku jàppale baykat yi kon nag bu ñu ñëwee ba lii am ñu ñu kii ëllëg lu kuy sikk itam foofu ngay tàmbali sikk ndax fi ne ñii sikk la ñuy wax mooy la ñuy commencé wax mooy euh, mbay mi mi wax ñuru ko nangam nangam ndax gis nga boolewu leen ci nangam nangam ëllëg bu ñu amee problème mbay mi bu amee problème ëllëg euh, kii baykat yi bu ñu amee problème ëllëg kenn du leen la ñuy wax mooy ah boolewuñu leen ci jolog bi kon dañ leen di yab nangam nangam ci foofu nag lañu am bu nit ñi foofu lañu amee bunt ci président loolu a dawal boppam ñi ñi ànd ak moom itam ñoo war a xool li ñuy li ñuy def ñu xool ko bu baax di ko fàttali am na ñu bari yoo xam ne aari waroon naa fekk ñu fàttali président ne ko ah, ah baykat yi kat nanga war nañ see war nañ lee boole ci dialogue bi ndax dégguñu leen ci dialogue bi nangam nangam man de wax dëgg yàlla déggu ma xawma lu xew waaye déggu ko waaw man daal euh, loolu mooy son problème dialogue bi nag ni mu commencé nii rafetlu naa ko waaw ma nag dana sotti wala du sotti mais nañ yaatal rek. ginnaaw dialogue nationale bi euh, sëñ Khadim Seck Sadaga ba léegi rek ci waxtaan wi maanaam ñu gis ne euh, mouvement bi di aar sunu moomeel. ne dafa port plainte euh, ministre de l' agriculture ngir maanaam rek aar li ñu moom ndaxte nag wuyoo nañu seen tur yow loolu lan moo ci say jàngat. nga suñu fàllu aar aar sunu moomeel bu fekkee ne ñoom lan lañ moom lan lañ moom laay laaj bañ naan dañuy plainte ay. ministère agriculture ak yooyu bu ñuy fontoo dañ xool lañ moom ñu perante ko waaw lii moomuñu ko moomaanuñ ko aar ah, lañ moom damaa ak seen bopp lañ moom waaye moomuñu nit ñi ñañ moom nañ nañ nañ wax ak ñañ moom yi ñun kuy ñëw ci ñun di jàppale ñuy jàppale moom kooku la ñuy waxal ñun mais koo xam ne mais suñu xaadim nag ñu gis ne aar sinu moomeel askan wi nag la fi nekkal ndaxte saa su ne rek li ñor askan wi ak li nga xam ne moom la askan wi moom moom ci la ñu nekk saa su ne seen bopp seen bopp lañ fi nekkal yow aar suñu moomeel ndax mas nga koo si àll bi xam nga mosoo leen gis ci àll bi ñuy wax ci mbay xam nga man affaire mbay affaire gis nga affaire secteur mbay bi ak koo man di doon bu fekkee bokkoo ci secteur bi boo ci waxee ba tontu la bu fekkee bokkoo ci secteur bi boo bokkoo ci secteur bi nag boo fekkee ne yaa ngi ci biir baykat yi moom di dem ci bay bi di leer ma leer man nañ ne baykat nga loo ci wax ma uma ci problème mais saa boo xamee ne baykat doonoo baykat ba pare di attaqué di attaqué mbay mi moom moom munoo fexe ba du ma la attaqué ma nit ndax ñun mbay lañ am ci ku ñu si mbay mii ñu nekk ku ñu ko fonkal ñu fonkal ku ñu fonkal ñu bala ndax président li ñu li ñu siy defal xeebuñu ko kon nag buñ taxee buñ waxee wax bañ bañ tax euh, président li mu doon jàppale baykat yi mu wàññi ko wala du am kon ñun la ñuy ñun la ñuy ñun la ñuy lor ñun baykat yi la ñuy lor loolu ndax ñoom dimuñu fenn ñu ngi fii li xamal ma wax bu baax. yow daal Serigne Khadim da ngaa gis ne kon aar sinu moomeel. Euh, li nga xam ne moom la ñuy kaas yéen wul maanaa xam nga euh, li ñuy wax yënul maanaa ndax xam nga lu tax yënul maanaa bu ñuy pelante lan la ñuy pelante lan lañ moom lan lañ moom laay laaj bañ naan dañuy pelante ay euh, ministère agriculture yooyu bu ñuy fontoo dañ xool lañ moom ñu pelante ko waaw lii moomuñu ko moomaanuñ ko dañ xool lañ moom mbay mii eh, gis nga mille tonnes yi ñuy wax ni ñuy waxee ak li demee bokkut dañuy wax ne tey ñen la Fall jox nañ la mille mille mille tonnes ci euh, euh, semence nga joxe waxuñu la ne dañ laa jox mille tonnes pour loo moom gis xam fu mu waxee nit ñi nag dañoo yaakaar ne ñoom ñëpp li ñu wax. mais Serigne Khadim ñu gis ne nag mil tonnes bari na trop te vraiment bu askan wi xamul nag euh, fan la dugg xamuñu nan la demee jot na nag yéen ñi nga xam ne yéen a jiite wàllum mbay mi wala yéen ñi nga xam ne yéen a wax ci wàllum mbay mi ngeen daal di koy leeral. Euh, loolu nag moo tax xam naa peut-être euh, waa aar sinu moomeel euh, jóg ngir leeral loolu noo xam nga xam nga ñu yor wàllu mbay mi ñu yor wàllu mbay mi ñoom ñun ñoo xam nga tax seen yoon nekku ji ñun la seen yoon nekk ñun ñun ñu xam si ñoo ko seq ak ñoom xam ñun ñoo res lool ñun ñooy dox lool ñoo nekk seen biir ñoo nekk seen biir yaa ngi dégg ñun ñoo war di wax est xam fa mu waxee ci ñun ñoo ngi leeral saa bu ñoo ngi leeral mais xam nga tey bu ñu waxee jox na le mille tonnes rek ñu yaakaar luñ la luñ luñ jox la loolu lañu war a xam nan la 1000 tonnes yi demee 1000 tonnes yi du luñ mayee dañ laa wax ne la 600 650 lañ la joxe 1000 tonnes yi ne jaay ko eh, lañ jënd jaay ñu gerte 1000 tonnes ah 650 yow bi ñu bi ñuy jaay 1000 tonnes yooyu bi ñuy jaay bi ngay jaay état 1000 tonnes yooyu 700 am na ci terrain ci tiiw da koo muñ lebal leen ah, kon nag la ci am lum mu tuut tuut war nañ la ko mën a bàyyee est-ce que ma waxee ci la nga am lu mu tuut tuut bénéfice boobee duurul bénéfice boo xam da nga koy jot ci saase bénéfice boobu boo yeexee mën naa am wala wala mën naa am ay ay ay ay weer kon nag lu mu tuut tuut mille yooyu nañ ko bàyyee itam fu mu waxee nit ñi nag dañoo xamul mille tonnes nag da ngay dégg mille tonnes dañ yaakaar mille tonnes yi luñ jël la jox ko kenn wala ñu may ko kenn demewul noonu mayewuñ ko dañuy kam tey ñu jox kenn mille tonnes wa kon ñu jox kenn deux mille nangam nang kuy wóolu jox ko nangam demal demal joxal ñu tey euh, euh, département Mbacké joxal ñu fa mille tonnes département boobu ñañ koy jox mooy sous ya ak maire yi ñoom ñoo ñooy res loolu bu buñ demee ñoom ñooy def commission leen commission boobu du njaañ mënu fa am est xam na loolu loolu affaire boobu dem nit ñi nag li ñu xamul mooy lan mooy mille yi ak lan mooy nangam foofu la problème bi nekkee mille tonnes lu ñu mayee du leen luñ jaay la luñ lebalee la loolu mille tonnes yi demee. waaw ñu jàpp ne rek maanaam ñàkk leeral rek moo waral jàpp nañu ne aar sunu moomeel. jokk ngir amal porte plainte. comme ni ko président waxee woon ci mbirum courant bi askan wi dañoo xamut euh, lan mooy euh, yokkute bi ak nan la demee ñàkk leeral boobu moo tax ñuy manifester wu man damaa jàpp ne na kon loolu moo tax itam askan wi di waa aar sinu moomeel jóg ne dañuy porte plainte ministre de l' agriculture. xam nga xam nga tey xam nga tey yow yow leeral nañ ne lii def nañ ci émission mën a ay yoon. xam nga kon leeral ñun ñu ngi ñu ngi leeral. ci duurul man dong maa leer ñeneen ñi ngi leeral il faut am wax kon liñ bëggut a dégg lañ bëgg dégg la ñuy dégg lañ bëgg a dégg dégguñu ko xam nga Sénégal noonu la ñuy dox yow xam nga li ma la wax yow def nañ ci émission boo xam ne yow leeral nañ émission boobu ku dégg da nga naan lii xaw bari woo nañ woo nañ ñoo xam dañuy woo ne ma xamuñu woon ne nii la problème bi demee ay kilifa sax woo xamuñu woon nii la problème dañoo dégg mille tonnes xamuñu ne mille tonnes ni mille nañ fa leeral lu leer la muy lan mooy yow dañ laa jox mille tonnes ne la joxeel département Mbacké département Mbacké boobu ay arrondissement yeeg maire yi mair yi ngay yóbbu mair yow ya ngay yóbbu boo demee da koy jox commission bi commission boobu ñooy xool ñan lañ koy jox muy ñi fay lemp ñi fay lemp ñoom la ñuy jox loolu kon loolu mille tonnes yooyee ndoxum amu ca am déet léegi nag Milton yi ñuy dégg lañ naan Milton Milton loolay problème bi. waaw Serigne xaadim ba léegi rek ñu gis ne ñi nga xam ne ñooy jàppale président Macky Sall ci ay wax ñu bari lool mais gisuñu benn yoon euh, saa su ne ñuy génn ci média yi comme ni ngay def euh, di defendre président saa yu ñu waxee ci moom nga jóg yëkkati ay kàddu defendre ko wala nga tontul ko euh, loolu gisuñ ko ñu bari di ko def loolu nag yow nga koy def saa su ne mais loolu pour lan la je comprends pas. ndax euh, y a quelque de dedans wala yow président li muy liggéey daf laa doy wala qu'est-ce qui xam nga xam nga xam nga xam nga ñun euh, li ma li ma waxoon ci émission bi rek laa lay wax dama ne la woon man duma kenn Macky Sall Macky Sall laay jàppale jàppale wu ma benn leader aw ma ko man Macky Sall laay jàppale kuy jàppale nit nag te gis la muy baax la muy lu baax la muy def lu baax la muy def ñi wax sax dañ say euh, kon du ma nangu ñi wax ca gis nga wàllu mbay mii. buñ wax fexe woon tey ñun bañ ba xam si tey mag yi président wàññi na ko wàññi na lim daan jox baykat wala nàngam du loolu ñu loolu ñu kenn baykat la ñuy lor est-ce que xam nga wax baax ñoom ñu ngi seen business. kon nag ñeneen ñi nekk seen business muy mbay nañ leen bàyyee mbay ñun président bi ñu jàppale ñun li ma war noonu la waree ñëpp ni ma war xam tey damay gis lu lu noonu ma wax ca loolu la waree képp koo xam ne yaa ngi ci APR loolu la waree képp koo xam ne fal nañ la. mais xañ na xañ na xañ na man euh, ndax man euh, li may def defuma ko ngir jox ma dara wala damay def loo xam ne damaa war ma def ko ki def leen war na amoo ci benn problème seen tuwoo ci dara xam na loo mais nag gis nga euh, Sénégal Sénégal ni ñuy doxee nii ah, ni ñuy doxee ni man gawuma loolu ndax man damaa gëm ne ki nga xam ne yow da ko da nga ko war a jàpp ne ngeen ànd ren daaw ba ren ngeen wala ay at ngeen ànd deux mille dix man deux mille neuf ba léegi maa ngi ci surtout lu ma ca am wala lenn bu fekkoon ne lu may am lu may jox ba tey kon gedd naa wala ma génn parti bi man seetuma loolu la tax seetuma loolu it lenn la mooy dama man su ma xasee ba tooy sima laa benn yoon laay tooy su ma na pare naa ci su ma paree na pare naa mais nag président laay jàppale aw ma benn leader kon nag di nga président laay jàppale aw ma benn leader président moom duma ma nangu lenn loo xam ne lu muy def la luñ koy wax li nga xam ne xam naa ko man muy wàllu mbay du ma nangu kenn lax ci leen ci man lu ma xam la lu ma ca wax lu ma xam lay doon leneen loo xam ne ndax xawma ci nag du ma ca wax mais wàllu mbay mii moom du ma ci nangu ndax dama siy gis lu si naa def fi ñu ko jëlee ak fi ñu fi ñu ko fi ñu ko yóbbu ci gis naa ci lu bëree bëri problème bi nag mooy lan euh, ministre agriculture xam nga dégg naa ko fan yee mu génn ne dañuy bàyyi euh, li ñu daan dimbalee baykat yi xam nga kon li ma la wax benn ngoog ci loolu loolu du yoon ndax nit li ñuy wax seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci mbay mi ñun ñoo nekk ci mbay mi ñoom la ñoom seen bureau ak seen business ña ngay dugg seen avion di dem ñun amuñu demuñu fenn ñun mënuñoo dem fenn ñun si ñun si kon nag la ñuy def ñun bu ñu ko yàqal am déet mais lekkuma ci ndab li il faut que ma xam suuf loolu mënut a nekk dañ bàyyi loolu bi ñu desin mooy da fi gis da nga fi gis euh, ñoo xam ne euh, dañ lay wax ne la président la ñu jàppale mais da ngay xam da nga doo boo demee ba ci ñoom doo xam lan la ndax duñ la wax leen loo xam ne lu ñuy mën daal leen li daal li affaire daal kenn mënu ko régler kenn mënu ko wax daal. waaw ba léegi rek ñu ngi ànd ak Serigne Khadim Seck ci seen site internet www.baolmediasinfo.com euh, ki nekk ci présentation bi di Serigne Fallou Ndong euh, Serigne Khadim euh, ba léegi rek yow ñuy gis ne saa su nekk ci say waxtaan da ngay faral di wax naan ñu jàppale président Macky Sall mais am na ñoo xam ne ñu ngi koy bëgg a jàppale te gis waaye ki nga xam ne nag yaa ngi koy jàppale te ko gis wala doo ko dégg loolu est-ce que dina yomb pour nga jàppale ko. xam nga xam nga euh, sëñ Fallou gis nga fii ñu toll nii képp koo xam ne jox nañ la ak ndomba nga yor ko war ngaa fonk lañ la yox war ngaa fonkit ka la ko jox xam nga lu tax ay junni ngi fi yoo xam ne ay junni nit ngi fi yoo xam ne mën nañ la nga yor la nga mën wala lu ko raw kon lañ la jox da nga ko war a fonk tegit nit ñi teg nit ñi it ay eh, maam ci nit niñ la ko tegee is xam la wax baax xam nga lu tax euh, buñ yaakaar ne njàng dong moo man ku jàng rek moo man dara gis nga ñun ñii jóge ci daara ñu xam ne ay daara lañ nekkoon ay niti daara lañ muy yow muy sama morom muy keneen mën ñu li nekk seen bopp mën nañu yorum réew yaa ngi dégg te taxut maanaam eh, kon kon bu fekkee ne am bu yaakaar mukk na sa njàngi mii war naa tax nga teg eh, lañ la jox looloo tax nga jox ñu jox la ko kon waroo teg fenn kenn am na ñu la dàq jàng ci ñoo xam ne joxuñu leen ko am na ñoo xam ne ñu jàng bay bëgg a dee ah, ñoo xam ne amuñu ren ña ngay taxawaal ah kon liñ la la joxee dara da ngaa war respecté lañ la jox fonk ko la ko jox fonk ga respecté ga mooy lañ la boole si diggante nit ñi muy euh, nga fonk nit ñi nga fonk leen la nga xam ne tey euh, moo nekk puy muy sa digg ak ki la ko jox bul nangu kenn ku ko laal bul nangu it kenn koo xam ne kuy wax dara lu ñaaw ci ku ci moom mais fi nit ñi nii naa dañ koo seetaan ci ñi ñu joxe ndoom ñu ci ëpp ñi ci ëpp laa la wax ah amul kon kuy saqat da ngay dégg président ñi koy wax lu ne amul génn wuñ li li président def waxuñu la muy def ñu néew am na ñu koy génn nag moom am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey mais ñi si ëpp defuñu ko kon war nañoo am positif ci xam ne lañ leen jox ay nite nga fa ñu ko man ñoo xam ne ñoo doon njëkk ci parti bi fuuf yàlla nag mooy def sédde mooy sédde noonu Serigne Khadim yow daal da ngaa jàpp ne maanaam ñi président Macky Sall fal ñëpp kon delloowuñu ko njukkal déedéet delloowuñ njëkkal président delloowuñ njëkkal président loolu moo mën a ñàkk bi ñu des am na foo xam ne itam bëggoon naa ñu wax si mooy lu mel jàppale sa réew le Sénégal euh, Marème Faye Marème Faye gis nga ni daan yëngoo ci euh, ci dëkk bi ci àll bi social lu si bari gis nañ amul gisatu gisatuñ ko ci loolu it bëgg nañ mu am ndax nit ñi sonn nañ da leen daan jàppale daan jàppale nit ñi nit ñi loolu jëruñoo xeeb na continuer ci li mu daan def gis nga nit ñi ku leen topp ku jiituñu wax la sa tànk yi dëng na bu fekkee ne ku la wax sa tànk yi dëng na nga gessoo doo dem ku bëgg nag ñi ku bañ ñi wax la dara nga mer doo nga nga def doo liggéey kon nag loolu war nañ koo Marème fay war na koo seetaat moom it bi ñu des mooy nit ñi ñi nga xam si président fal na leen ñi nekk ci état nañ fonk nañu génne li may wax bis bu set nañu génne li ñuy def nit ñi xamuñu lan la président def dangay ngay toog ak nit mun la yéen defoo leen fi dara wax leen lim leen li ngeen di def li ngeen fi def lim leen ko mais ana loo président juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at xaw ma juróom-ñetti at mu nekk ci koo waxal mun la defoo fi dara ndax lan amul leen lu mën a ku def dara doo ko génne loolu pour lan nañ seet nañ wax waani nañu génn li président di def ak li ku nekk la nga def nga génne ko ne lii laa def ñëpp xam ne lii xoola ko mel ne euh, kii euh, kii euh, Abdou Karim Sall Abdou Karim Sall boo demee Facebook bu bindee Abdou Karim Sall boo bindee Abdou Karim Sall lépp loo xam ne lu mu def la dana dana maa fa maa fa ci Facebook lu mu def lu mu def lépp loo xam ne def na ko ci muy ATP muy muy ATP muy ministère bii mu nekk def na ko ci Facebook ni est-ce que tey est-ce taxaw maam tey jii ñu ne euh, jaaduwul fi nekk nii kon. ñëpp ku mel ne ñëpp ñëpp koo xam ne ministre nga wala directeur nga lépp looy def nga nga génne ko nit ñi xam li président def mais nii. Sénégal koo wax mun defu leen fi dara defu leen fi dara defu leen fi dara da ngay wax bi bëgg a dee lii lii mën la defu fi dara ah, waaw ah, da ngeen fi dara rek lañ jàpp moo tax ñu ne defu leen fi dara j'espère que bu ngeen fi defoon dara ñu wax ko wala non non def nañ juróom-ñeenti at comme juróom-ñetti at ku toog 2012 ba léegi ku ko toog ci nguur boo ne defoo ci boo gis nga parce que borom tubaab boo demee ci àll xam ne def nañ def na def moom am na problème bi kay mooy communication lañ amul lii lañ jàppale wut président communication ci communication problème bi mooy ñi koy ñi koy ñi ñi ñu amuñu problème ndax Eh, mënuñu ko ay yaama neex lañ si jël nangam nangam yooyu moo war a dak nañ génne communication nit ñi génn li ñu xam li président def ñu liggéey nag te bàyyi wax ji te taxoon wax ndax wax dëgg yàlla euh, euh, na ñoo xam ne jàmbaar mais na ñoo xam ne ak directeurs yi ñoo xam ne jàmbaar mais am na ñoo xam ne liggéey xëy nelaw dong la ñuy def mais rek ku mel ne waa waa agriculture ministre waa yàlla jàmbaar lañ trop directeurs yi ministre xamul ma ko dara <laughs> ba léegi rek Serigne Khadim Seck benn directeur bu waxoon ne euh, yow ak sarak ji Serigne Abdoulaye Seck dañu leen di jaawale boo moom sax mu ne daf leen a jaawale woon euh, di woo ki nga xam ne moo di euh, sa saraka ji di ko laaj ndax da nga am mag ju tudd Xaadim Seck Sadaga loolu yow ban jàngat nga ci am. xam nga jàngat bu ma ci am. Euh, gis nga Sénégal man dafa am ñoo xam ne dama yaakaar dañuy dañuy soppeeku man loolu laa gëm. gis nga directeur bi ñuy wax ne moo wax loolu gis nga directeur boobu man bam ba mu faloo ba léegi man maay ñu su bari maay maay maay dem ci moom mais amul amul euh, laat daanaka demul ci moom kon tey bu ma ñëwee ci moom tey mu mu waat man naa ma honorable man ne ko man na suñ xaarim suñ xaarim mu ne ma honorable man na ko suñ xaarim moo damaa yaa ko euh, honorable moo toog moom moom laa waxal te maa toogoog moom ba jóg dem est ce que est ce que man li ma jot mooy soppeeku dama yaakaar dañuy soppeeku dama yaakaar kooku kuy soppeeku la sëñ bi yow ko xam ne man maa daan dem ci man saa moom ma a xam mais man du nuroo bi moo tax mais nuroo nuroo nañ mais taxul génn nuroo gu ñuy wax ci li xamul mooy man ak laat ñoo bokk ndey baay ba pare doon ay xarit teg yaa ngi dégg lu yenn ci man fanaan ci moom lu fanaan yenn ci moom fanaan ci moom man bi ñu bi loolu amee moom dafa woolaat islam dafa a naan ko ndax da nga am benn moom kooku moom laa la wax ñoo maa ngi moom eh, dem naa ci moom ay yoon yu bari yoo xam ne yoo xam ne yu yu ma yu ma yoo xam ne maa ngi moom ñoo daan ci moom tey mu tey mu jekki naan ko di man da ngay xool yooyu tey tey xam ne damaa yàgg ne soppeeku la jaww après mu woo laat di ko laaj ci man bi may dikk foofu bi may dikk foofu woo laat ne ko ah man damaa ngi dem bërëb sàngam maa ngi dem bërëb sàngam bi mu ko waxee xam nga lu ko laata wax a ma bi mu ñëw foofu woona a bàyyi xaalis bi ma ñëw foofu woona xam nga tey fi nii bu fekkoon ne tey wóoruma woon laat wa ilaa naa nga xam comme mën naa jaxase yaakaar na dara la ci ñun ñu demoon bañ juñ jaay yaakaar du juñ jaay ci turu laa waaw ndax am yoo xam ne ñun euh, ñun ñoo bokk ndey baay ba pare doon ay xarit tey su ma jugoon ne laaj dama laaj ñëw Dakar man ne ko dama laa bëgg a yónni fenn wala jugoon ñu ànd burtutànk dañuy dem day dem man bu ñëwoon bu na xam ne maa ba pare doon ay xarit teg kon loolu ak dof la dof la def woogam walaat naa ko damaa gis sa benn mag ndax sa mag toog na am na yow ay at yoo xam ne saa bu ne ñëw na ci yow li wax ak yow ah bu tey ñëwee nga naan ko eh, damaa wax naan bay woo ko naan ko diw damaa yaakaar naa ko damaa yaakaar day soppeeku la yaakaar ne man. waaw euh, sëñ Xarit yow da ngaa jàpp ne maanaam euh, jaawale boobu nga xam ne directeur boobu def na ko ba wax ko yow da ngaa jàpp ne mën naa juru ay coow ci sa diggante ak Sarak Abdou Lahad Seck Sadaga wala. tey mënoon na ko day fii tey bu fekkoon ne tey laat euh, xam nga tey bu bu jógoon tey. nanga kon ma bu fekkoon na laat ab dof la wa ilaa koo xam ne tey meluñu ni ñu mel nii man naa yaakaar man damay jóg laat man naa yaakaar loolu mais ñun xamul seen diggante ni mu ndax lool ba mu amee rek ci saasi laa xam lépp ci saasi laa xam lépp kon am na yoo xam ne du nite xoolal nit yi dafa baax te gis nga boobee boobee xam lu ma wax dina maa ngi lay woo ar sàngam maa ngi lay woo après kii ba ma woowee ne honorable ma ne ko no honorable suñu xaadim mu waa ne ma honorable ma ne ko suñu xaadim mu mel mais libéré téléphone bi ndax man après après laa xalaat bi ma bi ma bi may bi may wax ak laat laa laat ne ma euh, di woo na ma mu naa ne ah, mais téléphone ba ma dégg dafa mel dañu ko mais mais day xool yooyu yooyu ban njëriñ la am tey bu fekkoon laat def na tey est-ce que du wax naa ah yow kon da nga may da nga may da nga may daraja woon nangam ci yow koo xam ne man li ma eh, eh, ñoom ñëpp xam nañ ma ah dafa am xam dafa betti mais nañ nite dañoo war a nite man man du ma toog fenn mën a laab xalaatuma ko sama tur wii du ma toog fenn mën a diw xalaatuma ko man da nga naa mën a yow diw man a ko déedéet ñi mais daal doy na waar leen lépp kenn mënu ko wax ginnaaw loolu Serigne Khadim Seck euh, waxtu waa ngi jëm ci jeex euh, kon xam naa rek euh, lan ngay dolliwaat ci waxtaan wi ginnaaw li nga xam ne moo di poñ yi nga xam ne waxtaanee nañu ko muy concernant dialogue national bi waaye itam concernant mbirum agriculture bi. Oh, li ma si dolli daal lenn la mooy. nañ dimbale président président sonn na bëgg naa liggéey. buñ demee ba xas ne président pare na ku ne nga aw sa yoonu bopp. bu fekkee mënuñoo topp la président wax ku ne yoonu bopp dimbale président ndax président li man mu ngi koy def nit ñi nañ jàppale président ci li muy liggéey président bëgg naa liggéey ñim ñi ñi ànd ak moom ñooy lu si lu xew ñooma nañ recevoir nit ñi di wax ak nit ñi di xool fan mooy métti ci dëkk bi su suma nañu jàppale baykat yi ak ak sàmm bi baykat yi sàmm bi ak ak àll bi àll bi daay yi commencé nañ autofor nañ tàmm ñoom itam ñu ngi leen di fàttali ne leen seen oto yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi nañ leen delloowaat ci àll bi gën maa ngi koy fàttali directeur directeur moom euh, muy bay di ba ñoo ngi koy fàttali xamal ko ne ko àll bi commencé naa lakk kon nañu na yokk dooleem ndax wax dëgg yàlla jàmbaar la moom wax dëgg yàlla jàmbaar ndax mu ngi renforcer yu bari ci àll bi ndax am na oto yu indi ci àll bi ak yu bari yoo xam mu ngi koy def ci àll bi mais dañoo bëgg oto yooyu nañ génn ndax tey xam nga euh, sa ministre saa bu doonee jàmbaar da nga jàmbaare yow bu la si kenn ndax mais sa ministre saa bu liggéeyee nga liggéey waaye waaye bu sa liggéey ministre liggéeyut yow directeur yaay liggéey mais ministre bu liggéey ñaare liggéey bi du noonu mais mm, osofore moom wax dëgg yàlla ñoo jàmbaar lañ trop jàmbaar lañ kon ñoo ngi leen di wax ne leen daay gi tàmbali na nañ ñu dimbalee wàcce oto yi ci àll bi wàcce ndox bu ñu wax mukk na daay am na waaye amuñu ndox mu ñu ko faye ñu ngi leen koy fàttali wala amuñu essence bu ñu gasoil bu ñu yóbbu loolu itam ñi ngi wax bay di mu jàppale ñu ci loolu gën ñoo jàppale sax la wax ndax wax dëgg yàlla jàmbaar la jàmbaar la trop waaw ñi ngi sant itam euh, di di sant ñëpp ñoo xam ne ñu ngi diglu Baol Média internet bi ci internet bi ak rajo bi yëpp di eh, di sant it waa waa waa kii euh, Pape Amadou Sarr ñu ngi koy sant bu baax moom itam jàmbaar la loolu wax dëgg yàlla maa ngi koy moom it maa ngi koy suivre bu baax muy Pape Amadou saar maa ngi koy suivre bu baax moom it am na it am na benn booy bu nekk ci benn benn kii commandant Osofore bu nekk ci Osofore yaakaar naa caw caw la tudd minimum dama ngay gis nii ci ci yo bari yoo xam ne mas nañ ñoo boole maak moom ab liggéey eh, jamono yi nga ni tey mooy bi ñuy defar euh, bi bi nga xam amoon dañoo amoon partenariat ak ñoom moom lañ ma boole woon jamono yooyu moo nekkoon sama diggante ak moom suñ diggante ak ak bi mais nag euh, boobu yàgg na euh, deux mille quinze yooyu la yaakaar naa mais nag jàmbaar la topp wax dëgg yàlla kooku li ma gise mooy bëy di bu ko jàppale wax dëgg yàlla xam naa ne bu ko ministre bi jàppale dana dem ndax foofu daal gis naa fa ay jàmbaar noonu laa ko gisee ci ministre ak culture itam ku mel ne directeur euh, Sané ku mel ne euh, directeur cabinet bi ak ak ak euh, kii itam président itam nañu dimbalee ci matériel bi na teel a ñëw ñu ñi ngi gërëm it Samba bu baax baax wax dëgg yàlla moom itam jàmbaar la lool ndax dama koy gis ci àll bi ah dama koy gis bu baax a baax moom it Samba kante moo yor àllu wàllu matériel bi moom itam jàmbaar la wax dëgg yàlla jàmbaar jàmbaar waa waa ministre agriculture man daal ma képp koo xam ne gisuma la nga jàmbaare ci la ngay def ma amul sama yoon nekkul ci yow man daal ku jàppale président jàmbaare ma ma tudd la ma sant la ku jàppale ku képp koo xam ne jàppale président ci la ngay def sama yoon nekkul ci yow xawuma la xamaanduma la mais Serigne Khadim nag ñëpp mënuñoo jàppale président Macky Sall non non xam nga boo gisee may wax ñoom laa wax ñoom ministres yeeg directeurs yi laay wax képp koo xam ne yaa ngi jàppale président yaa ngi génne yaa ngi jàppale président ci la ngay def sant la jàppale gi mooy doonul ne xam nga jàppale président mooy la ngay ñëpp xam ne yaa ngi liggéey mais doonu ne da toog fa nga toog ne moom ko mais yéen mel ne xoola euh, am na euh, ministre ku mel liggéey mas ngaa gis lu mu lu mu def ah dama lay laaj ministre leen xamoo leen leen ministre yi néew laa a tudd kii itam kii Sahara Thiam moom itam maa ngi koy suivre bu baax maa ngi koy suivre bu baax gis naa ko Pikine gis naa ko Pikine gis naa ko ci ni ma gisee muy muy jàppale waa Pikine ak ñeneen ñu mu gis ñu ma gis mu jàppale leen kon kooku ñoo ngi koy sant bu baax ki la muy def ma li may wax rek man kenn fayu ma weer la ma gis laay wax kenn neex man neexulu ma kenn lu ma gis daal ku liggéey yéen président liggéeyal askan wi ma sant la ko deful nag sama yoon nekku yow lii daal xam naa ko waaw baax na jërëjëf sëriñ Xaadim ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm baax na jërëjëf ñoo ngi sant bu baax di gërëm bu baax merci ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom sëriñ Xaadim Seck Sadaga moom mu nekk responsable politique APR nekkoon suñu invité tey ji ci suñu site internet www point bawol média info point com ñu leen di jaajëfal bu baax ki nekkoon si présentation bi di sëriñ Fall Ndong dox daje ba yoon